remercier ci euh, teew bi remercier tout toutes ces bon euh, organes de presse yi nga xamante ne ni ils ont répondu à l'appel de de l'événement Raya Music Awards bu ñuy préparer le vendredi 10 décembre inchallah ci Canal Olympia pour la septième édition je m'appelle Mamito je fais partie du staff et euh, je serai aussi co de l'événement enfin ça fait un petit moment à ma droite Ndiaye le promoteur de l'événement euh, à ma gauche euh, Pen je pense que jaratul ñu koy présenter notre mentor quelqu'un qui nous accompagne depuis le début Euh, on a déjà accusé un petit peu de retard. Voilà. je vais passer la parole à Souleyman pour qu'il puisse euh, euh, décliner un peu ren ci fan la ñu toll parce que je pense que ñi am habitude u ñëw ci raaya xam nañu à peu près quel est le processus euh, par rapport aux nominations par rapport au vote surtout ak aussi innovation bi nga xamante ni ren bëgg nañu ko indi ci euh, ci événement bi parce que événement bu demee ba am si sept édition euh, dootul lu ñuy présenté ci euh, dans un sens mais ci beneen sens dañuy présenté ay nouveauté ay innovation yoo xamante ne nii dinañu ko indi ci biir organisation bi donc Souleymane Ndiaye la parole est à toi pour nga wax nu juste ren raaya fu ñu ci euh, fu ñu fu ñu ci toll au niveau de l'organisation. waaw comme ni ñu koy waxee bonsoir ma leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay et di leen remercier encore de d'avoir répondu présent yéen toute la presse qui est là pour la presse écrite que ce soit presse écrite que ce soit presse euh, en ligne que ce soit les télés je vous remercie euh, ci teewaay bi comme ni ko Mamito waxee. ñu nekk ci euh, conférence de presse bi nga xam ne moo nekk suñu septième édition Raaya Music Awards bi nga xam ne ñu ngi koy dem ñu ngi koy defale chaque année ñu koy ñuy pérenniser chaque année di rendre hommage musique sénégalaise en tant que tel ci musique sénégalaise yëpp ci forme yëpp de ce fait que tey nag ñu nekk ci wàccaay yi presque mu des daanaka deux jours pour ñu dem le 8 le 10 décembre au canal Olympia à partir de 19 heures ñu fas yéene leen jox beaucoup de distinction sur différentes catégories y a 12 catégories yoo xam ne bu ci nekk dina am benn trophée bu koy génn ba mu ñaari catégorie mu nekk artiste de ne bi ak euh, révélation de l'année bi et sur ce on vous remercie vous tous ki nga xam ni moo doon présenté léegi mooy Mamito mooy tout ce qui est communication bu Raaya Music Awards et tout ce qui euh, animation bi tamit moom moo ko yore kii di suñu père Giuseppe nga xam ne mooy suñu mentor c'est qui gère tout ce qui de choses le groupe euh, mooy yor euh, tout ce qui est technique Babacar Fadera ñu nekk ci euh, invité leen ak ngeen demandé ñu li nga xam ne moom ngeen soxlaa xam ñu jox leen tamit li ngeen xam ne moom ngeen soxla ñu dem ci ci jàmm commencé ci jàmm la ci jàmm. jërë ngeen jëf merci Mamito merci Souleymane merci rafetlu euh, ces moments parce que comme j'ai eu à le dire l'année dernière si vous allez en Guinée ils ont leur dem au Mali ils ont euh, nga dem au Burkina ils ont leur en Afrique du Sud il chaque pays rek am na benn moment bu muy magnifier Euh, liggéeyu artistes yi seen réew au Sénégal il y a eu beaucoup de tentatives tentatives yoo xamante ni on peut les mornais on a connu beaucoup beaucoup euh, d'organisations yoo xam ne qui tendaient vers ça na mel ay vidéo et cetera yooyu yëpp jaar fi et si euh, Raya Awards a vécu ans et encore vivre beaucoup plus autant c'est parce que d'abord c'est un euh, ils sont très engagés ci ni ñuy def parce que ñoom ñu koy def ñëpp kenn du musicien et que aussi bëgg nañu crédibiliser le travail des artistes sénégalais et en cela man je me désole personnellement pourquoi parce que ils n'ont pas à enlever non ou tel ou parce que un artiste qui sort album album bi ñëpp koy déglu on nous l'impose on a la droit nag de de dire que cet album là lii la pesé wala lii la pesé wala lii la pesé wu kooku ça c'est notre avis artiste raaya artiste bu bu nu ci nominé nan la fa bàyyi parce que nag ñoom ñoo ñoom du ñoom ñooy imposer raayam damay dugg wala du ma dugg c'est pas de toute façon kii c'est un patrimoine et boo xamante ni dafay justifier le travail bi nga xamante ni moom la artistes yi di def donc euh, je me dama dama je suis un à ce que certains artistes soo leen nominé ñu am une certaine crainte une certaine peur et cetera donc quoi ils ont peur lan la ñuy craindre xanaa dañu wóoluwul seen liggéey walla parce que nit ki aussi euh, ci li muy liggéey nga ko mën a ràññee donc euh, li muy liggéey nag parce que dañu ko imposer ñun ñooy déglu rajo yi ñooy seetaan télé yi ñoo koy consommer am mu si droit d'avis aussi donc à part de 500 euh, su ñu xoolee selon les critères yi nga xamante ni moom la ñu définir. dans l'exercice décembre à novembre ku fi génne album te album boobu répondre ci critères yi nga xamante ni moom lañ teg dinañ la présélectionné yaa xam nag ak doo koy doxale kooku moom parce que amatul sax ay sànnim ay frustration ki ay ay fioriture et moi je vous tout le temps euh, bravo bravo parce que ku nekk xam na ni Organiser par exemple un événement de cette dimension, ça a un coût. muy coût économique muy physique ci façon bu nekk metti na te du ngeen ñëw ba gis ci saal ba ay sponsor yoo xamante ni fu nekk ñoom koy taxaw ça veut dire que ni ce gosse non seulement il est à encourager mais il est aussi à accompagner Euh, muy moom muy tout le staff et suñu demee ba ñuy gën di dolli ci événement bi ay yu bees bay primé ci ay ay ay tapis je crois que y a excellent travail qui a li nga xamante ne nag alors moom ci gën a neex moom mooy choix wu ñu ñu sargal parce que yàgg nañu sargal de mais tur ma fi dégg. ku mel ni Aliou Bathily directeur général de la de la SODAV voilà un garçon qui parti comme stagiaire à la SODAV ci biir SODAV SODAV muy monter échelon yi di monter échelon yi ba nekk secrétaire général di monter échelon yi ba nekk directeur général quelqu'un qui est parti comme un stagiaire c'est extrêmement important je crois que ce il est à féliciter Kumba euh, Gawlo quelle est aujourd'hui la femme sénégalaise boo xamante ne mën nañ ni kii am na disque d'or disque de platine fi mu yóbbu musique sénégalaise niveau bi mu ko yóbbu ci jigéen kenn eggagu fa kooku je am na droit reconnaissance le ministre ab Diop ñun de yàgg nañ fi ci ministère yi yàgg nañ fi lool on a été des collaborateurs et tout mais gestion bi nga xamante ni moom la fi def depuis son bi en 2018 bariwul ministre yoo xamante ni def nañ ko fi euh, pour preuve ci magistère am le statut de l'artiste génn n'a pas été euh, totalement absent dans ce combat-là sa gestion du du fonds Covid ak euh, bi mu ko jëlee su doon beneen ministère ba nga ni kon daal ay a vraiment très intelligent et maintenant nag la relance du plan du du du le, le plan relance du plan du secteur culturel li nga xamante ne nag alors c'est tout ce que les artistes attendaient et il s'est battu combattre ko pour rien que pour je crois que am na droit nag jox ko nag un rail pour l'ensemble de son travail et donc encore vraiment félicitations ñu ngi koy wax xam nga pour ñu nominer yomb c'est facile pour ñu xam ba nan nga toll aujourd'hui la technologie permet tout il y a les réseaux sociaux il la presse il y a tellement d'opportunités yoo xamante ni mën na nañu xam kii combien fan la toll euh, produit bi fan la toll ak ban impact la am ci nit ñi fii ak ci nit ñi bitim réew c'est très facile donc euh, dal euh, li may wax rek mooy félicitations encore et que je sais que je vous ai accompagné depuis le début mais tant que j'aurai une souffle de bi dama leen di accompagner. pas parce que c'est c'est c'est noble et ça crédibilise man liggéey bi nga xamante ni moom laa koy def autour de la musique bëgg voilà donc euh, je vous remercie.